ci di ko tegal nit ñi ñu koy déglu insha allahu tabaraka wa taala ñu ngi woon ak yéen ci suratu naxli muy suratu niam saar wi nga xamante ne ni yàlla mu ngi ko tudde yamb waaye tamit kazalika am ñu koy tudde saaru xéewal yi nga xamee ni ni yàlla subhanahu wa taala daf cee lim xéewal yu baree baree baree bari te bokk na ci xéewal ya comme ni nga xamante ne nii noonu laa koy waxe bis bu jot moom mooy alquranul karim xéewal la ci xéewal yi moom téere boobu nga xamante ne ni yàlla moo ñu ko defal wax ni inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam yàlla subhanahu wa taala nee na alquran daf lay teg ci aw yoon daf lay teg ci aw yoon ba nga xam naka ngay dunde fii ci àdduna ak allaaxira mbokk yi li taxoon ñu jël saar wii wax nañ leen ko it ay yooni yoon moo dafa nekk saar woo xamante ni nii boo ko càmbaree ndànk-ndànk da nga ciy xamee yàlla te yàlla boo ko xamee rek di nga ko jaamu ba mu des ku rëy te dinañ ci ñëw ci jeexintal bi insha allahu tabaraka wa taala bi passé ñu ngi nekkoon ak yéen ci xéewal yi mu wax ni moo ñu ko may wa huwa alladhi saxara al bahra li ta'kulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi wali tabtagu min fadlihi wa laallakum tashkurun aaye jooju lañ mujjee woon a firi mbokk yi déglu leen tey yàlla subhaanahu wa taala ñëwaat ak yéen nag ci yeneen xéewal yoo xamante ne nii moo ñu ko may mu nekk xéewal yoo xamante ne nii buñ ci càmbaree xool ci rek dañu xam ne yàlla subhaanahu wa taala kenn la te mooy kee yoo jaamu mbokk yi yàlla ba tey mu ngi wax nii wa alqaa fi l ardi rawaasiya an bikum wa anhaaran wa subulan laallakum tahtaduun yàlla subhaanahu wa taala nee na wa fi l ardi rawaasiya yàlla mu bind suuf ba pare def ci ay montagne yu dëgër waaye ci aaya ji yàlla tuddul montagne dani maa bind suuf def ci yu dëgër yan yu dëgër montagne yu dëgër wa alqa fil ardi yàlla nee na bi mu bindee suuf ba pare moo ci sànni moo ci samp rawaasiya yu dëgër yu dëgër yan montagne mais tudd ko dañu rek wa alqa fil ardi rawaasiya aay bi lan la normalement wa alqa fil ardi jibaalan rawaasiya yàlla nee na moo samp ci kaw suuf ay montagne montagne yoo xamante ni dafa dëgër këj mu téye suuf mbokk yi yàlla bi mu bindee suuf ba pare dafa yéem malaaka yi malaaka yi dañoo yéemu ci ngandaayu suuf xoolal àdduna bi ni mu tol suuf ni mu tol suuf di baaje di yëngatu di yëngatu di yëngatu yàlla daal di bind montagne samp ko ci suuf dal malaaka yi yéemu malaaka yi yéemu poser question yàlla ni ko waa yàlla est-ce que am na lu gën lu gën a lu ëpp doole ci li nga bind montagne <laughs> yàlla ni leen waaw waaw weñ mu ëpp doole xeer te jii montagne lu mu rëy rëy rëy gars yi léegi defar nañ ay appareils yoo xamante ne nii ci feer mën na koo toj mën na koo dagg malaaka yi daal di laajar yàlla ne ko kon xanaa fer euh, euh, fer moom dara ëpp ko doole yàlla ni leen déedéet feer am na lu ko ëpp doole malaaka yi ni ko lan la mu daan ni leen safara weñ lu mu dëgër dëgër dëgër boo ko duggalee ci safara mu nooy kon safaraa ko ëpp doole malaaka yi yàlla waa kon xanaa safara moom dara ëpp ko doole yàlla ni leen déedéet am na lu ko ëpp doole lu ma bind ñu ne ko lan la mun leen ndox safara ndox a koy fay kon ndox ko ëpp doole malaaka yi ni ko ah kon de xanaa ndox dara ëpp ko doole yàlla ñu leen déedéet ba tey it ngelaw ko ëpp doole ndox ndox lu mu am am doole ngelaw mu ko ëpp doole ngelaw mën na koo déplacer tasaare ko allahu akbar malaaka yi daal di waaru nag daan na ko kon nag yàlla wax fa digg yàlla kon nag ngelaw moom dara ëpp ko doole yàlla subhanahu wa taala daan na leen doomu aadama ëpp doole ngelaw ban doomu aadama doomu aadama boo xamante ne nii buy saraxe da koy nëbb yàlla rek tax kooku mu ëpp doole lépp allahu akbar mbokki yi len ma doon wax ni imam tirmidhi nettali na ko anas ibn malik mom mo solo hadith bi mu wax ni lamma khalaqa allah al arda jaala tamiidu wa tattarib fa xalaqa allahu subhanahu wa taala alayha aljibala fastaqarrat fa ajabat almalaikatu fa qaalu ya rabbi hal من xalqika shay'un ashaddu min aljibal fa qaala naam فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح فقالوا هل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم إذا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها عن شماله الله أكبر مبوكي حديث بابو إمام ترمذي نتلي نكو أنس ابن مالك مموكو صلو جلو كتيران تبي صلى الله عليه وسلم ملاكي بيال بندسوف نييمو تدولي قمو أم waye yàlla bindu montagne bind li nga xamanteni ni mom modi ay montagne def ko ci souf mu daal di koy téye kon yàlla neena ci alquran ci suratul nahl ma len defal ay montagne wa alqaa fi l rawasiya antamida bikum ba bu ngeen ngeen ngeen ci mën dox normal antamida bikum wa anhara yàlla neena batay ma len may ay dekh ay dekh yu bari ngeen ci ngeen ci bay ah di ci génne ndox mu ngeen naan di dem ba ciy wut sax li nga xamante ne nii moom moo di courant tey ji coow yi nga xamante ne nii ci weer yi ñu génn rek diggante Égypte ak Éthiopie ñépp gis nañ ko parce que waa Éthiopie dañoo bëgg a génne ci euh, dex gi te moom moo di niil bi dañ cee bëgg a génne courant boo xamante ne nii moom la ñuy alimenter ci seenum réew Égypte yaakaar ni loolu daf koy lor Soudan dugg ci ba fi may wax ak yéen nii ba léegi coow loolu jeexagul parce que yàlla subhaanahu wa taala li ma la bëgg a wax rek moo ñu may nee ay dex te dex yooyu yu nekk a ngi ci wa anhaara wa subula yàlla subhaanahu wa taala na ba tey it maa leen may ay yoon boo génnee Dakar nga bëgg dem seen village foo dëkk yaa ko xam mën naam Casamance nga dëkk nga jël sa yoon ki bëgg dem Fuuta mu jël yoonam ki bëgg dem Thiès mu jël yoonam ki bëgg dem Tamba mu jël yonam yalla neena yoy mem mem mem lolu xewal na ci man suma ma ma jaxase aduna bi boo xasse ba genn sa dëkk dootoo xamal sa dekk fu mu waw wa anharan, wa subulan kholal laallakum tahtadun yalla neena ma len may ay yon yu ngeen di jaar pour ku ci nekk bo genné xam fi nga wara jaar ba ci avion yi pilote bu ñu ci jawuji amna mbedd yu ñu jaar boo yaakaaree ne avion bi day naaw fii rek ni màkka laa jëm rek départ déedéet daa am fu muy jaar de daa fu muy jaar am am ñu koy wax jaaral fii mu topp yoon yi ba egg màkkatal mukarrama ndeysaan naka noonu naka noonu yeneen dëkk yépp kon nag yàlla subhanahu wa taala nee na même yoon yi ngeen di jaar tukki moo xam bato yi ci biir géej gi jóge dëkk bu nekk ba ñëw Afrique wala fu mënti dem avion yi naaw oto yi daw ci jéeri ji yépp yàlla subhanahu wa taala nee na moom la léegi xéewal la yoo xamante ne nii moo ñu ko defal ñun doomu aadama ñu war ko cee sant moo tax bi mu waxee aaya boobu wa alqa fi l ard rawasiya an tamida bikum wa anhaaran wa subulan laallakum tahtaduun lan la ca teg wa alaamaat wa bin najmi hum yahtaduun wa alaamaat yàlla subhanahu wa taala nee na moo ñu may ci yoon yooyu ñuy jaar di dem suñuy dëkk ay mandarga yu ñu xam ne fii laa war a jaar fii laa war a jàdd yoon wee laa war a jaar wa bin najmi hum yahtaduun tamit kazalika yàlla nee na maa leen may ay biddiw yoo xamante ni nii ci ngeen di xool yéen waa Màkka ndax dafa wax ni wabin najmi hum yahtadoon yàlla subhanahu wa taala alquran ji yonent bi la ko jox instant boobu waa Màkka la waxal te waa makka dañoo bari woon lu ñu daan tukki te dañ daan nekk ci désert bi topp lëndëmaay gi ba réer mais ci biddiw yi lañuy topp ba xam wan yoon lañu war a jëlaat ba ñibbi Màkkatal mukarram moo tax yàlla ci aaya bi mu daan ni wabin najmi hum yahtaduun ñoom waa Makka waaye nag aay bi yemul ci waa Makka kase ba yowmal qiyaam képp kuy xool ci biddiw ngir am foo jaar moo xam mool bi la biir géej moo xam waa ji doon tukki la jaar ci désert bi même moom it yàlla subhanahu wa taala na moo ko ko xéewale wa bin najmi hum yahtaduun waa mbokk segam lii la bi yàllaa ko def yàlla daal di poser question nag afa man yaxluqu kaman laa yaxluq afala tadakkaruun ey yéen waa Makka yéen ñiy jaamu ay xeer di ko yet waa est-ce que est-ce que ki bind lii may fi wax yépp émission bi ba mu commencé ba léegi ba tey fi ñu egsi xéewal yi may fi wax yépp mais kooku ki ko def est-ce que yem nag ku deful dara xeer woo xamante ne ni yaa ko jëloon yettu ko afa man yaxluqu kaman laa yaxluq afala mais xanaa du ngeen amam xel xalaat nag xamb yi ngay jaamu xërëm yi ngay jaamu est-ce que yem na ak yàlla subhanahu wa taala bul jaamu kenn jaamul yàlla subhanahu wa taala موتح مو اندي آيدي أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يا الله سبحانه وتعالى نينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سنين توغون دي لم خيوال يوالين دفل والله دي دي سون دونغ مي منو لين كو خم خيوال يمالا دفل يو سجم جي منو كو خم xéewal yi ma la defal ba nga juddoo ba léegi mënoo koo xam xéewal yi ma leen defal ci àdduna mënoo leen koo xam oto yii di daw nga ci yéeg ak a wàcc xéewali yàlla subhanahu wa taala la foo bëgg a dem dem xéewalu yàlla la ba ci wat sa bii tubaab yi defar indi ko wallahi xéewal la ci xéewali yàlla yi téléphone xéewal la ci xéewali yàlla yi lépp lu ñuy dundee yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo ñu ko may parce que tubaab bi toog ba xalaat ba xereñ ba génne dara tubab bobu xelam mu neex momé yàlla subhanahu wa taala moko ko may lolo waral bo bakko ak sa xel rek yàlla alag la te mo daron qarun xelam la bakko won daan ni lima am ni sama xel moko may moo Ghazali neena ko ya dof wa d'accord na sa xel mu neex moo la may li nga am xel mu neex mi kula ko may yàlla subhanahu wa taala wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha inna الله لغفور رحيم rahim لا جيخالي لان موتاخ يالا واخني su ngeen toogoon di lim xéewal yi ma leen xéewale mënoo leen a xam nu mu toll ba pare daan ni inna allaha la ghafur rahim moom yàlla subhaanahu wa taala ku mën a jéggale la ku am yërmande la dafa bëgg bis ni tey boo dégloo émission bi ba pare mën naa am yaa ngi doon dund ci xéewali yàlla mais bàyyi woo ci woon xel bis ni na nga ci bàyyi xel bis ni ki na commencé sant yàlla boo yéegati oto nanga ñaan sooy wàcc na nga ñaan boo dangte dangtee ba egg sa kër ba waaj a di waaj a nalaw na nga xam ne nalaw yi ngay waaj def yàlla subhanahu wa taala moo la ko may lal ba nga tëdd yàllaa la may nalaw yi ngay nalaw yàlla moo la ko xéewale yooyu yëpp ko defee nga ko moo tax mu daal di wax ni inna allaha la gafurur rahim moom yàlla ku mën a jéggale la ku am yërmande la te boo ko santee mu dolli la waaye tamit boo ko ñaanee mu daal di lay may kon mbokk yi lii ay xéewal la yoo xamante ni yàlla subhanahu moo ko lim ci suratu nax li léegi nag am na baneen faneen fu yàlla duggaat ak ñun ci aaya yi teg leen foofu seen baaraam fan la yàlla duggaat ak ñun loolu dinañ leen ko leeralal ci waxtaan wii di ñëw insha allahu tabaraka wa taala yal na yàlla defal dégg topp jéggal ñu suñu bàkkaar lu fi jum nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëgg ngeen jéggal ñu ko ñu àndoon ci ak liggéey bi ak laa maison di Coran di sant ñëpp ñu nekk ci xarala gi wa jazakumullahu xayran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu góorgóorlu leen ci alquraan def ko lekk def ko naan ma nga bawoo ca asamaan jibril mu mi andi na leen jaral sonn bu wér